Imam Assane Seck Imam maa ngi lay nuyu di la ziyaara ñu ngi ci Arafat gi yow miin nga foofu bu baax a baax la ñu ci mën a wax rek incha allah yaa ngi doon déglu sànq boobu ba léegi eh, ki nga xam ne mooy eh, Abdou Salam eh, Kébé. waaleykum salaam Cheikh Bachir ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Alfayda yëpp di nuyu Cheikh Abdou Salam moom génn si. suñu antenne bi léegi. Hmm. di ndokkeel jullit dafa mën di nekk ci àddina bi ci bisu Arafat bi. Hmm. ni mu ko waxee rek alxajju arafa la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon. ci hmm. suura xajji baytil xarim. ci la yàlla ubbi ah, weeru ajam yi. bisu korite bi ba bisu tabaski bi bisu Arafat tey bi ba xasee paase nga mën arafa loolu moo ko indi. maanaam tey ci bés bii moom la yonent yàlla tudd ci alquran yowmal xajjil akbar wa adaanu min allahi wa rasuli ila naas yowmal xajjil akbar anna allaha bari min almushrikiina wa rasulu ci bés bii la woon moom mooy bés bi nga xam ne mooy bés bu màgg bi bésub aj bu màgg bi ci la yonent bi defoon xutbaam bu mujj bi boo wax ak xeet yi nga xam ne ni moom moo war a ñëw ak li nga xam ne ni moom moom moom la yàlla bëgg ci ñoom ba woon na yàlla matal na diine ji al yawma akmaltu lakum diinakum bésu feer la woon mooy bés bii yaa ngi dégg ci jàngalee bàyyam mi wax naan Seydina Omar am ko wane ko ñun de bu xamone bis bi ñun ñun bu fekkoon ne ayom ak ma dalakum dinakum ci ñu la wàcc dañ ko def bisa feet omar nako ko ankay ah, xam bis ban la won ndax bis bu mo tombe won ak bisu fete ci bisu aljuma la won te yeen sallallahu alayhi wasallam nga nekkon ci haram ba kon moy fete yu dajee la woon loolu mooy ne bis bu bis bu mag la li ci ëpp solo nak moy li la abdou abdusalaam ñu doon wax moy wane ne kuy acc bis say bi ni il faut da wara tew harafa li ñu wax wuquuf bi arafa taxaw mais xuduru arafa moom moo gën a maanaam teew arafa moo gën a mën a yaatal ndax ki fa tew benn waxtu bu bu tuuti rek ci nee na jant bi buy soo fekk la benn waxtu benn minute sax après am nga arafa mais ku fa taxaw da timis fekku la fa amoo arafa ku nig ba timis jot itam ñu ne nga doog a ñëw amul arafa moo tax ñuy wax ne maanaam bu jant bi di waaj a so ci ngay gis sax nit ñëpp commencé jug di di taxaw di di séntu jant bi muy so ñu ñaan mais bëccëg bi yenn salaas la fa la yenn woon moo tax kon nit ñi force ñu yenn ji fa yenn boobu ñu yenn nag ba muy wax ak nit ñi moo ko taxoon taxaw ci kaw montagne ba di wax bilaal waxat nit ñi dégloo nga jottali pour ñu xam li ñu bugg a wax pour boobu dañu bàyyi dana wax ci jottali ne ne ne ne ne bi ñu indee rajo boo ko seetloo rajo muy li nga xam ne moom mooy mu kabiraat saw di haut-parleur yi am ñu koy wax ne bidaa la mu ne leen du lu may jottali nit ñi luñ mën a dégg fu sori la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy taxaw jabal abi si dafa bëggoon na ñi dégg ko waaye ba taxaw ci arafat itam ku taxaw ci kaw ñëpp di la seen dañuy dégg li wax taxawaay boobu moom la nit ñi jàpp mais nekkul ne da ngaa wax dem yéeg ci montagne bi surtout nag naaju tàng yi xam ne ni mu ngi fay am suba gi cinquante degré nga xam ne kaw la sax du koy am léeg-léeg boo demee ba digg bëccëg da ngay dégg ay cent quatre nangam degré loolu nit ku ko mën a dégg bariwut moo tax nga gis ñi dañu daan ndoxu seet yi nga doon ko ci arafat bi mooy bisi la boo xam ne nii sallallahu alayhi wa sallam na ne xayru xayru du'a xayru du'a du'a yawm arafa bés yi bi ci gën moom mooy bés bi nga xam ne moom mooy euh, ñaan yi bés bi ci bi ci gën mooy ñaan bi nga ci arafa ci lay wax tamit ne xayru ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala seen shay'in qadir moo tax ku nekk di aj tey foo nekk ci arafaat bëgg nañ ngay répété loolu laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu loolu mu la ko alhamdu wala ko seen ndax yéen sallallahu alayhi bi mu waxee ne ñaan gën ci ñaan yi mooy ñaanu arafa waxaat ne itam laa euh, ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu boobu noonu ci la nit ñi sukkandiku ne kon ñi wax baat boobu ci bés bi moom moo gën ngay wax leen moom foo toll nag ci arafaat yaa ngi ci biir tànt bi yaa ngi ci biti fi nga nekk da nga jàng alxuraan da ngay tudd yàlla dangay ngay da ngay bi da ngay da ngay da ngay loo def lu ñuy xam ne ne tudd yàlla la ci la aju subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allahu akbar la hawla quwwata illa billah yooyu yëpp mën na koy jàng salaatu annabi bu mu mën di doon pour tudd yàlla la ci bés bi ak ñaan moom mooy li nga xam ne moom lay bu sopp mais ñi nga xam ne nekkuñu tey arafaat ñëw nañu arafaat di aj ñooñu sant leen ñu ñu wóor parce que yéen sallallahu alayhi wasallam bi mu fi ñëwee woon wóorul woon waaye wax na ne bisab Arafat bis la boo xam ne nii bu ko wóor yàlla dana la baasa bàkkaar at bi jiitu ak at bi ñëw donc mooy ñi nga xam ne ni yàlla dogalul ñu mën a ñëw aj ñu mën a dem aj ci tey jii ñooñu ma am nañ ocasion pour mën a oor loolu xam naa ba si dama ci profité rek mm, benn masala bu di jaawale tey la Arafat léegi nga woor ko suba nga nga nga xaar Màkka julli gannaaw suba nga nga nga tabaski Sénégal cool yu bëri na fa mais yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam man damay wax ne am na lu mat juróom-ñeenti at ci Màkka demul aji ji maanaam euh, aji presque ñaari at ñaari yoon la am ñetteel ba mu ñëw aji si. at yooyu yëpp na mu ngi doon tabaski te tabaski bi boobu mu ngi ko doon teg rek ci weer bi teeru la rek bu fukkeeli fan ba ñëwee rek dama war a tabaski donc kon bésu tabaski bi nga xam ne moom la Sénégal yeeg ñeneen julli ñëpp ci àddina bi di di séentu am ñoo xam ne ñu mel ni Maroc ak suñu mbokk yi kii gannaaw suba lañ koo def ñoom mooy altine ba ñooñu dañoo sukkandiku ci li yéen salaa salaam jàngale rek ne maanaam euh, ixtilaaful mataala dëkk bu nekk buñ gisee rek seen gis-gis na leen ñu mën cee jàpp pour mën a def li nga xam ne moom seen jaamu yàlla gi moo xam or la wala ori la wala tabaski la donc kon ñoom seen juróom-ñeenteeli fan mooy tolloo seen bisab arafaat même soo demee ci fuqaa yi màkk yi nga xam ne ni sax nangu nañu ñenn ñi da ngay dégg ñu wax ne arafaat ba am zamaani ak makaaniya maanaam képp bu nekk màkk tey sa bisu arafa tey la mënoo koo wuute ndax màkk ci bis boobu lañ lañ jàpp seen gis-gis léegi nag koo xam ne ne àndoo gis-gisu màkk sa dëkk nga xaar seen gis-gis su boobaa sa juróom-ñeenteeli fan mooy arafa or suba moy nek sa arafa ci sunna gannaaw suba moy nek sa tabaski lolu buntu lon mo na ko jallale rek pour ñu ñu bayiko ci mais li nga xamne moy xew ci aji nak mom moy metti na trop ni koy waxe aji man ñu télé commencé tay ji ni kep ko xamne armalo won cheikh bashir man nga ñew armal tay su ko defé and ak nit ñi ñu tam arafa nga continuer def yi def suba ne jam ray sa aji jeexna waye kep ko xamne ni tam armalo ngo ci wéru koor yo ya wala ci wéru diggu wa hmm. yow ki armal tay yena bokku ben até ndax waxtu arafat bi moom moo tënk li nga xam ne moom mooy aj ji li yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxajju arafa mooy su xasee passé kenn ne maanaam da ngaa da ngay mën a euh, def yeneen yi doo ko doo ko jàng arafam duñ ko jàng mook tawaaf ifaada kenn du leen jàng ak li nga xam ne mooy armal ak dox safa yooyu ñooy nga xam ne kenn leen a jàng waaye arafa ci boppam tax yéen sallallahu alayhi moom mooy def ci spécialité daf ci am spécialité boo xam ne mooy su xase passé jeex na safa a morom ma nga fa mën ngaa dem di ko dox jamono ju nekk tawaaf ifaada bis bu tabaski bi passé jour boobu noonu ba ba ngay jugee màkk weeru tabaski bi jeexagut am na ne mën nga ko faa def yaa ngi comprendre armal nag moom arafa xasee am tey jii nii guddi gi bu xasee jeex tey kenn mënatut a mënatut armal loolu moo tax ñu ne mooy xajj arafa kon ku ku mais soo taxawul arafa itam mooy sa aj bi jeex na. bokkutoo hmm. mënatoo ci nga xam ni ngay dabaatal. loolu bu ñu doon wax. ci suñu mbokk yi comme ñaanal euh, Sénégal ñi ñu àcc yëpp yàlla mel na ñu def am jàmm bu delluwaat ak jàmm. waaye comme ni ko sa sëriñ moom di waxee foofu itam ñii ñëwagul yàlla jàppandal leen mën a dem àcc ci. ñi nga xam ne ni itam ñoo ne góor gi oote góor gi ne ko moo tax oote yi. Hmm. yàlla delluwaat ko delluwaat ci jàmm. mais euh, baax na ci lu mel ni ñi doon ko dégg xam naa njëkk dagg aj gi ndax. Mm, waaw euh, surtout dañuy dañuy sonn dañuy mm, xër. bëri dañuy bëgg wax ne yonent bi taxawoon na Arafa danaa dem jéem a taxaw ci montagne ba léegi xoolal fu lu mat ñaari million ak lu taxaw. ah ñëpp bëgg a yegg tey képp koo xam ne nii ñëw nga àcc rek yow tey arafa force fa nga nekk pour nga xam ko mooy ñi ñi si daan ka télé télé télé Màkka boo bi waaw dañuy gis ne kaaba gi kenn nekku fa waa Màkka yi ci la ñuy profité pour changer mbubbu arafa mbubbu mbubbu kaaba gi soxlaat ko ko balaa nit ñi di ñëwaat parce que jamono bi nit ñi di aj duñ ko mën hmm. tey jii boo taaloon télé bi na nga gis ne mbub mi ci kanam léegi sax da nga gis ni ñu koy ñu ndax am na am bu ñu koy defal bu weex noonu boo xam ne dafay xaw a wàcc pour nit ñi mën di tawaaf mais bisu arafa bi dañuy fekk màkk yëpp bitti na tey amul kenn ku fay nekk. say boo boo xool ñuy julli sax presque ñooy fomp lay doon ak ñi nga xam ne ñooy sécurité ba ak imam ba waaye du am ay nit. Hmm. mais bu arafaat bi jeexee guddi gi nag ci la at ji di commencé waat coono yëpp tamit ci lay tàmbali. maa ngi dégg léegi yéen a ngi wax yow ak euh, Abdou Salam kii bi li xam ne mooy mooy cinq kilomètres xaw ma six kilomètres yooyu ñu wax moom la ñuy dox ba màgg. waaw waaw problème problème bi posé wu sax moom mooy. waaw boo jugee boo jugee Arafat ba wàcc Musdalifa. Ah. pour nga amati bis bu la yóbbuwaat mu naa moo dul yomb. waaw force nga dox. ndax ndax oto yi dañ fay bëri ba bu ñu dajaloo duñ mën a dem. duñ dem waaw dëgg la dañ fay fanaan. Hmm. léegi nag benn place bu gàtt boo xam ne ni ay kilomètres yu ndaw la lu mat ay ay ay bis yoo xam ne bu ñu tegalantoo danañ mat ñoom seen bopp ay kilomètres duñ fa mën a duggaloon nii moo tax bu ñu jógee wàccee Musdalifa dañuy génnaat wala nga xam ne bu ñu la bëggee yóbbu dañuy dañuy wëri ci léegi nag yow groupe bi groupe bi nga àndal pour ñu dem sànni ci Jamra hmm. am na ñoo xam ne comme comme ni ko waxee dañuy jaar mun a wàññi seen bagage doo ko doxaat dem léegi nag boo àndee mag ñoo xam ne mënuñoo dox léeg-léeg il faut nga am ay ay ay ay nu mu tuddati pousse pousse yoo leen mën a teg mhm. mbaa ñu sonn ci yoon diggante boobu doo am oto bu fa jaar oto xaju fa parce que oto bu fa jaar ci kaw nit ñi lay jaar mhm. léegi nag pour pour pour mu leer ci ñenn ñi rek mooy xoolal gàmmu Medina Baye bu ñëwee biir Medina waaw bisu gàmm bi léegi ñëpp dajee fa léegi nga bëgg a jaar ak oto ci biir bayaal bi génn dem fan ngay jaar du sotti déedéet déedéet dëgg la pour pour mu gën a leer rek noonu fële moo koy ëpp nag léegi nag nga nga bëgg a jugee Musdalifa dem sànni ji jamra dem dem def tawaaf ci bés bi coono la boo xam ne nii presque aj gi bis boobu la bu ñu ci jugee yow lu nga ko ñun buñ fan yi ci toog yëpp ni ñu saxar la ñu nekk. li ko indi moom mooy boo doxee Musdalifa ba mun a doxaat mun a ba fa ñu sànnee jamra hmm. boo mu bëggee génn jël jël oto ne da ngay dem màgg dañuy taxé lu bëri te doo gaaw a egg mm-hmm. te bu fekkee groupe nga ànd mën a fa bàyyi groupe bi di dem yow kenn su ñu fa ëpp xam xamuñ te yow mën a jël groupe yëpp dugal leen ci oto à la fois mm-hmm. léegi nag coono boobu noonu am na ci ñoo xam ne ci ci expérience ñun daanañ def au lieu ñu sànni ñu dem def taw ibaada ci bis bi dañuy sànni jamra mm-hmm. dellu siwaat dellu siwaat muna su ko defee toog foofu noonu watu changer suñu yëri bu ñu sànnee jamra ñaari fan yi su ko defee bu ñu demee Màkka ñun ci la ñuy doog a def tawaaful ifaada ah, boobu. ok. Mm-hmm. Mm. Mm. système boobu ndax tawaaful ifaada bis bis bi bis bi ci lay commencé mais du ne forcément mu nekk ci bis bi. mu ci bis bi forcément ah donc kon nit mën naa muñandiku coono bay am mu xaar ba nga xam ne nii wàññiku ne mu dem mu dem mu demaat ndax dana jox jàmm ak noflaay ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ba mën a jox jàmm yàlla ci ñi nga xam ne noonu la noonu la mm-hmm. yellee. Musdalifa bi Musdalifa bi. Mm-hmm. Musdalifa bi waaw. bu ñu indoo arafa dañ fay julli tisbaar ak takusaan mais musdalifa timis ak gée même bu fekkee da ngaa guddee ñëw da nga ko fay julli. timis ak gée ok. su su guddi gi xaajee ci biir musdalifa nga dëgg ba ay minuit jëm jëm jëm ki kii euh, une heure. waaw mën ngaa bañ a xaar mën ngaa bañ a xaar fanaan ba fajal nga julli doog a dem. ndax hmm. yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi xooloon na ñoom ñu mel ñoom Sawdu soxnaa mi màggat yooyu noonu ak ak ñu néew doole hmm. mu wax temps passé ñoom ñu ànd ak ñoom ñoom ñu dem jiituwaale leen sànni jamra segam hmm. jamono yonent bi nag nga xam ne ni cent vingt mille saxaaba la àndaloon ci la amoon problème nit ñu bëri ñu ñu rott ñi ba mu wax ne ñi mën nañoo rocceeku dem su booba su boobaa kon jamono bi nga xam ne millions yi nit ñu bëri nañ gën gën ëpp te point yi mënoo dugg fenn di jaar dañ continuer di dox man hmm. ngaa xaar ba guddi nga rocceeku yow ak sa mbooloo mi ngeen jiitu jiwaale sànni wala jamra balaa nit ñi ñëw hmm. ndax man maa ngi fàttaliku jamono jamono bi bousculade bi di am at boobu noonu. waaw mën naa wax ne ñu bëri lu leen sowe woon loolu la woon. maanaam ñun dañoo dem sànni ci jàmbara ji ci guddi gi balaa fajar di jot. Hmm. boo sànnee jàmbara pare léegi boobu da ngay continuer dem màgg. Hmm. Hmm. jamono boobu dañuy sa tawaaf li bis bi jot na soo paree euh, bi. presque ñoom bu bi fenk julli nañ ko nga julli. su ko defee dem sa hôtel dal du ci. looloo tax jamono boobu boo paree yow mën ngaa dallu ba digg bëccëg hmm. nga jëlaat sa yére sol sa dugg sa oto dem dem dem dem fi nga xam ne mooy mun a fanaan ji fa hmm. loolu expérience la boo xam ne lii ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi ñi ngi aj hmm. su fekkee mooy li ma wax ne waroon naa jiitu bu ko defee di ko ci bàyyi waale xel dëgg la voilà léegi fanaan Musdalifa du du force du force. ki nga xam ne nii nag sallallahu alayhi wa sallam fanaanoon na fa waaye ba mu demee ba gis ne guddi gi xaaj na mu ne ñu néew doole ñu nañ jiituwaale ñoom sànniwaale. Hmm. pour ñu bañ a bokk ci buukante bi di sonn ndax benn benn jamra fa am ñuy sànni. te ñëpp danañ ko sànni ci ci même jour bi. Hmm. xoolaatal tamit ka cadre gi benn espace la ñëpp danañ bëgg a dem wëri ji ko bi. Hmm. léegi nag fu ay millions yi dañuy gis moo tax dañuy gis ñi ci suuf la ñuy nekk ñii ci kaw. ci beneen kaw. pour ne kaaba gi fees na bu ñu dugg parce que li ñuy bañ mooy buuxante yi di am. Hmm. ak aller retour bi boo duggee bunt doo ko génneewaat yooyu yëpp dañ koy def pour maanaam aar nit xam ne ni mën nañoo bañ a gaañante ci biir waaye li ëpp solo moom mooy rek pour hmm. tënkal euh, li nga xam ne mooy arafaat bii nii ak li des ci aj bi hmm. presque mën nga wax ne tey la tey la tey la dégg naa soxna soxna waaw euh, kii may mu ne mu ngi leeral ne waaw arafaat dafa mel ne bis penc la effectivement boo seeloo li bàyyi doon jàngale ci ci ci euh, aj di wax ne dafay dafay symboliser yowmal xiyaama waaw mooy ne mooy hmm. mooy yàlla dafa oo àddina bi yëpp ñu ñëwandoor ko jugee fu nekk hmm. te bañ ñëwee ñoom ñëpp amut kenn ku sol yére yu ñu lay xàmmee ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu armal sol yére yi weex hmm. benn benn boo odd ak benn boo làmboo sa kaw amul beneen yére bu ñu lay xàmmee mu ngi mel ni bi nga juddoo ni nga ñëw indiwoo dara nga ñëw nga ñëw sàngoo ko noonu comme koo xam ne ñu dañ koo sang ba pare jëbal ko boromam yëre malikaana mi wax ma sol ñëw taxaw hmm. ña fa taxaw ñëpp itam benn làkk la ñu wax mooy loo dégg-dégg français anglais arabe ah. tax nga wax la béykat ci làkk hmm, hmm. la béykat laaw moom arabe lañ koy làkk ñëpp la ñuy wax mooy li maanaam yomul xiyaamal arabe lañ koy làkk mooy foofu ñu ba fa ñëw ñëpp la laaw ma la làkk la béykat laaw ma la béykat la béykat la amul kenn ku koy wax ci sa beneen làkk yëpp moom la moom ngay làkk su ko defee fi ñu taxaw euh, yéen daal xam sallallahu alayhi wasallam wax na ne malaayika yi yàlla dafay wax leneen sama jaam yi ñëwal nañ ma ndax woo naa leen ñu wuyu mm, bu nekk nii dama leen a déggal cere mooy képp ku ñëw lay baal sa bàkkaar mm. ñi doon ñi waroon dem safara ñu leen di ñu leen di góoreel dafay bëri yéen sallallahu alayhi wasallam nee na seytaane bis bu ñuy gën a mer mooy bis boobu ndax yàlla di di bëri lu muy góoreel ay jaam ci safara ci bisu euh, nu mu tuddati arafaat bi dafay wax ne ñii ñëpp jugee nañ ci ay place yi di ma wisi lan lañ soxla mu ne liñ soxla mooy ma defal leen sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne bisu arafat ñëw na toog ba mu yàgg di ñaan ba mu yàgg mu taxaw di ree sidna omar di ko laaj dina ree mu ne man de dama doon ñaan yàlla mu baal ñëpp mu ne man de mën naa leen a baal sen bakkaar yi nga xam ne def sama diggante ak ñoom mais yi tooñ est-ce que mënoo jël jëf yu baax nga remplacer ko maanaam liñ tooñoon seen jaam yi jox leen ko da nga baal yi liñ defoon. fekk boobu Iblis mi ngi kontaanoon ndax li yàlla ba yàlla ne ko garaaw léegi kon danaa baal yëpp oh. képp ko amee loon sa morom ak ma jël jëf ju baax jox ko kooku loolu ne ko kii mooy li la ki yore loon bi mu waxee loolu salaa salaam mu ne Iblis dafa tëdd wane gannaaw di ngelawal di daw oh. léegi nag mer moom meroon di daw noonu mooy moom la salaa salaam doon rek bàkkaar yi nga xam ne moom la jaami am te képp ku ñëw Arafat tey ji jàppal ne yàlla jéggal na sa bàkkaar yooyu noonu macha allah mais yàlla gu yaatu yemaloo ko ci ñëw ñi ñëw ci bi rek mais bu ñu wooree bis bi waaw na leen seen yi at bi jiitoon ak at bi at bi passé mooy jëf nga ci ne moo war a ñëw te loolu nit mënu ko démb passé na mënoo cee liggéeyaat mais woor a tey gii ni mën na la cee liggéeyaat ndax mën nga cee effacé la ci defoon dëgg la at mii di ñëw aussi aussi exeegul mënoo cee def dara mais yàlla ci yërmandem mën na laa defal nga nga def ci loo xam ne nii exeegul mooy soo ko ooree baal na laa li nga xam ne nii yaa yaa ngi mu ngi war a ñëw te defagoo ko kon mooy wane ne bisu arafa bis bu màgg la mm. fa yàlla mm. mooy yowmul jaayisa mën nga wax mooy bis bu yàlla di di neexal jaam yëpp di leen góoral di safara ci la seytaane di torox ci la ci yàlla mataloon itam diinaam ji ndax keroog bis boobu la aaya bu bu wax waxee atte gëj a wàcc bu ko yonent wa sallam jàngee jeex na ci la nu mu tuddati sallallahu alayhi wa sallam mujj bi wane ne seen alal yeeg seen seen seen dereti morom yi xaraam na ci yéen comme ni bis bi xaraamee place bi xaraamee ko ndax laajte ne ban weer la ñu waxu ko ban bés la ñu waxu ko ban place la ñu waxu ko mu ne leen màkk place bi xaram na tudd Euh, yowmu biñ nekk yowmu jumaa bis bu xaram la tamit ban fan lañ nekk nii ci woon weer lañ nekk ñu ne cheru xaram la muy weeru weeru tabaski hmm. mu ne nag ni weer wi amee xorma bis bi amee ko xorma euh, place bi amee ko xorma noonu la yàlla joxe seen béret yi seen morom ngeen am xorma ba kenn warut daati moromam noonu la yàlla joxe itam seen alal yi mu sàkkara ba kenn warut laal alal yi moromam hmm. léegi li aju ci wàllu riba ak li aju ci wàllu rey ak yëpp dañ koy mujj léegi xaraamal dëppet ñi xam ne jotoon nañ koo def am ci riba dañuy dindi seen bos yàlla effacé na ko mooy bu abbas abdama tali bàyyam hmm. yi nga xam ne itam jot nañ leen a tuur dañ leen koy mujj effacé mooy lañ tuddee am am amnistie jamono ji am amnistie nañ maanaam bépp riba bu mosoon a am amnistie nañ aussi tamit bépp déret boo xam ne mosoon na koo tuur waaye li ko dagg fii tey jëm bis penc ni bés bi xaraamee place bi xaraamee ko li nga xam ne noonu la weer wi xaraamee noonu la yàlla defee seen déreti morom ci yéen xaraam ci seen moroom ak seen alali morom kenn bu mu lekk alali kenn ci la sallallahu alayhi wa sallam doon xool kaaba gi benn bis ne ko am nga ma fo yàlla lool màgg nga lool waaye nag déreti ba kanam benn julit moo la gën a màgg kon ngay gis ne kon li kaaba gi màgg-màgg hmm. ak li muy for for nga xam ne bu nit dépassé woon ay millions ay wala ay milliards dem ci beneen place ne dafay aj lu tax mu am aju lislaam hmm. li muy foor noonu ba ku fa taxaw jàkkoor moom yàlla nangu la baal seen bakkaar ku ko wër yàlla baal seen bakkaar ku foon xajul asod yàlla baal seen bakkaar ku dem ci multasam yàlla baal seen bakkaar nangu la say ñaan hmm. ku dem ci si xajul ismaila mooy lu loolu dend ak kaaba gi dañu wax ne ci la bokk ku fa taxaw ñaan yàlla nangul ku dem ci fooraay boobu mu am ci ci effacer bàkkaar yi ku fa julli benn julli yàlla def ne moo gën junnee julli yoo julli feneen bis loolu la loolu am ci xurma hmm. waxul waxul cent mille la wax de cent mille julli soo ko defee ci hmm. waaw boo ko defee feneen cent mille maanaam mooy téeméeri junne ci ay julli nga xam ne hmm. boo ko doon compter ay at la lay jox ci ay at at yoo xam ne dund ko ko woon benn benn place ngay def am loolu mu ne place bi li muy foor foor ba mën a joxe lii bakkanab benn doomu aadama boo xam ne jullit moo ko gën a foor kon mooy yàlla fooral na ba bakkanab jullit moo tax mu ne seen bis ni ki tey seen seen alal dafay xaraam seen deret dafay xaraam bu kenn tuur deret moromam bu kenn lekk laal alal moromam lu dul ci dëgg hmm. ci kaw loolu mu wane na itam na ngeen am yërmande ci jigéen ñi ci xutbaam gi wax na loolu am na yërmande ci jigéen ñi am na ci jigéen ñi mooy na ngeen na ngeen sàmm seen diggante ñoom am nañ àq yu seen jox seen diggante ñoom na ko waral hmm. wax na ne jigéen àqam ci borom këram moom mooy bum bum teg ci kaw lalam koo xam ne nii bëgg ko mooy olof di wax naan bu soo jëkkër fiiree bul bëre góor gu ko doyul hmm. sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkkoon a jàngale waaye itam góor gi war naa war naa wax ak soxnaam su fekkee dafa jum ne na ko na ko na ko na ko conseillé wan ko ne ko lii baaxul lii moo la ci nar a fekk soo ko defee itam li nga ci nar a jëlee su nanguwul mu ne nañ ko tong waaye na tong bi am ci biir néeg mooy ni nga mën a nekkal sa soxla sa biir néeg yéen ñaar ñëpp ku nekk nga baal ma ci kàddu gi jàngale la ku nekk di gis awra moom su nit ne salaamaaleykum ngeen sol seen yere gennat nëbb ko li nga xamne mo mu ngeen doon wanante yéen ñaar noonu ngeen wara a suturaalante seen bir li ngeen di am ci ay problème ba kenn wor ko xam mu nek sa diggante mom kon moy so koy tong wala nga diko wax ne ko li baaxut li la ko meuna faje neem ci bir neeku bu kenn ñew di di lu mel noonu loolu yariñ la bu ñu salaa salaam joxoon jullit ñi waxaat na su lolu mu nta mu nta jëriñ mu ne dor bu ñu doon wax na ngeen len dor dor boo xam ne du dóor bii gaañ salaa salaam moo doon jàngal loolu am su dégg xam ne door na fi jigéen mais wane ne maanaam jigéen bu fekkee ne dañ ko valoriser jox ko gëddam ak fu mën di toll euh, ñu baal ma di raay li xam di ko def lu ci ci lu ko neex bu demee ba yëkkati loxo jëmale ko war naa xam ne fooratu loolu am na lu nekk ci moom mu jéem a dabaata loolu boo mu amati mais xam mm-hmm. ne na nga xeex wala na nga gaañ loolu salaa salaam da ko joxoon pour jàngale ko li nga xam ne mooy xeej maanaam xutbaam gi ci gàttal daal mm-hmm. ci arafat yi la ñëwoon mm-hmm. taxaw ci kaw gëlëm ga dinañ ko jox sax mu naan dafa naan naan ñu ko defal njar mu naan parce que jaww ji dafa tàng am ku woor mu ne ko na toog kenn woor si ñi nga xam ne dañoo ñëw màkk si <laughs> ñëw arafa kenn wóorutoo woor mu yëg nag taxaw di wax ak ñoom nag ne leen mën naa am bu bis bii passé tey du ngeen ma déggati du ngeen ma gisati at boobu noonu ci la aj benn yoon boobu la aj ba mu paree jeex na <laughs> su ko defee ci leen wax na li nga xam ne moom moom la doon jàngale bi yàlla wàcce aaya bi ne diine ji mat na bu ko defee ñu ne Seydina Aboubacar jooy mu ne moom dégg na ne comme diine ji mat yonent bi moom moo moo ëmboon lii yëpp ci hmm. moo doon diinaam ji mooy bis hmm. la yàlla di procuré malaaka moo xeeru duwaa yawma arafa waxaat tamit xayru maa kuntu anhu nabiyuna min qabli man ak yeneen tamit jiitoon li ñu wax yëpp li ci gën mooy laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharika lahu kon bëgg nañ nga dajale ñaari ngëneel yi mooy bisab ñaan la nga ñaanee lii def ko ci barab boobu noonu itam dana mujj am yool boo xam ne danga ko am bu loolu weesoo li nga xam ne moo ci des na ci wàllu complète li nga xam ne mooy aj yi mm-hmm. ku xas jugee léegi fi nga xam ne moom mooy arafa jeex na amatul foofay taxawati bés boobu la fa gars yi di yenn suñu pare pare nañ ko lu dul nga xam ne aj gi jeex na nit ñi a dem visite dem visite ji ko te xam naa dañu sonn boo xam ne ni dem ko dem a yomb nga def gannaaw gannaaw jamono aj dafay métti mm. voilà léegi nag euh, jugee fa ci ngoon nga li nga ko waxee woon fa lañ julli tisbaar ak tàkkusaan boolente leen bu ci nekk dañ koy def dañ koy def salaat bi ñaar ñaar ñaar lañ koy julli suñu defee ñaar ñaar yooyu buñ demee Musdalifa nag fa la ñuy foree xëy foofu dañ fay julli timis mais moom bu kenn du ko wàññi teg ci géej gi muy ñaari rakka soo xasee julli gee nag mën ngaa dallu foofu noonu toog xeer yi ngay for itam boo ko foree mën nga kaa def ci ci butéel yu ndaw yi nga xam ne ñu la koy jox nga téye ko fa léegi li ma waxoon mooy bu guddi gi xaajee ñu bañ xëñ xëy suba teel di sonn wala ñu ñu yendu ci naaj wi duñ mën a gaaw a génn dem sànni ji jamra ndax xawma ak wër ci tawaaf ifaada ñu lottu néew doole bañ am loolu mën nañoo rocceeku ci guddi gi dem. Hmm. suñ demee ñoom ñu sa ñu jaar mun a seen dal yi laal fa ndox sax wàññi coono tuuti doog a demaat ndax boobu day fekk jamra yi kenn xuggu fa su boobaa nag boo leen demee sànni jamra dañuy dañ koy fat ci jamratu ah ah kubra mooy bu bu bu bu nga xam ne mooy bu mag bi moom lañ ko ooyee. da nga ñaari dañ leen di baare def ci rouge pour wane ne tey kenn waru faa sànni suñ ko sànnee nag moom jeex na hmm. sànni bi da ngay sànni wax allahu akbar ba mat juróom-ñaari yoon. xeer bi na dal ci potu bi wadd benn yoon nga def ko benn benn ba mu jeex ku bañ a itam mën ngaa teg sa loxo ndeyjoor sa loxo càmmooñ say xeer di faroog sa loxo ndeyjoor di sànni sinon mën ngaa sànni noonu ñaar su boobaa rek benn lañ koy compter loolu itam ñu war ko bàyyi xel bu ñuy bu bu ñuy bu ñuy bu bi buñ fa jógee itam dox bi dem Kaaba ga yoon bu mën naa libre waaye nag coono lay doon ndax soo fa doxee ba dem ba Kaaba ga da nga defaat tawaaf xam nga tawaaf bi tamit da ngay Kaaba gi mhm. kaaba gi soo koy wër noo ko sa wër gëna gaaw mais no gëna sore sa wër gëna a su ko défé ba fu jigé ba fu jigé ñi nga xamné ni dañu défon ñetti aji yi mi wax ifad la ak khiran ak tamattu mm-hmm. ki défon tamattu mo force fay dem dem def sa safa ak maro ndax euh, safa ak maro bu mu jikko na def ko pour omram la woon mm-hmm. kon bu ñëwee ni pour aji bi ni dafay dem defaat safa ak maro mais ki def khiran ak ifrad su fekkee bi mu won makka yoonu bu ñëk défon na safa ak maro gëna bu défé tawaful qudum su ñibbisee fi nga xam ne ni moom mooy ci euh, tawaaful ifaada bi dafay tawaaf rek dem ñibbi moom watu après sol ay yéram noppalu moom du def tawaaf lu mm-hmm. def safa ak marwa lu dul nga ne nag ba mu ñëwee yoon bu njëkk def safa ak marwa su ñëwee yoon bi leen def moo tax lu gën a bëri faral di wax ne aj bii moo gën wala aj bii moo gën lislaam jarangaloo ko yonent Muhammad sallallahu alayhi wa moo moo indi ñetti aj mm-hmm. def na xiraan daal di wax ñii ne leen def leen tamattu wax na moom man tamit su fekkoon ne indi moon hadi danaa def tamattu léegi am ñoo ne wax nañ daf leen ifraat ak moo jàngale yëpp. Mm-hmm. léegi nag kon wax na ne bii moo wala baa moo gën nit ñi ñoo koy wax mais moom waxu parce que moom yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee bi la la la la la la def am na ñoo xam ne ifraat la def ci hadisu Aïcha moom la Maalik yi jël ba ñu bëri dañuy wax ne ifraat ifraat moo gën mais yonent bi bokkul benn moo mm-hmm. moom nee na su fekkoon ne indi ma woon hadiyu bu njëkk ba kon man damay def tamattu ndax moo gën a yomb. Seydina Ali mi jugee woon Yemen indi indi gëlëm yonent bi bi mu ñëwee dafa fekk Seydina Seydina Fatima sumeeku na sol yére civilam mu jaaxle ci yonent bi ne ko ko digal. ndax dafa laaj Fatima ko yonent man mii sax su fekkoon ne indi moon laay def. kon loo ciy déggee mooy wane ne kon yonent bi wa sallam wane ne bii laa def waaye ñu ne comme comme bi mu wax ne moom laa doon def konoon moo gën am ñu ne déedéet bi mu def gën. Ah. mais lu ci mën di bu gën sa morom. yaa Aïcha moom ifraat ifraat la defoon ndax bi nit ñi defee ifraat euh, seen tamatu boole nañ umra ak aj mm. ñi def xiraan nañ umra nañ mais ifraat aj kese la moom mu ne na am na ñu def umra man mën a guma def umra gannaaw fekk dafa amoon ngant mm. ci li sallallahu alayhi wa wax mu ànd ak mu ànd ak nit dem ba ca euh, tanim mooy booy génn xaram bi fi ñu tuddee masjid Aïcha léegi mm. ndax fa la doon defee xarmalam ko foofu noonu fa la gaa yi di xarmale pour ñu def ifraat léegi nag ku def tamattu boole nga ajoog umra ndax umra nga commencement ba pare def nga aj mu jeex ki def karaat na moom dafa boole ñaari ci benn yéene léegi nag su ko defee moom ajam day mujj mat gannaaw boo xamee nit ñi mais ki def tamattu ak ak ak karaat ñoom rey gàtt daf leen a war mooy forcément dañoo war a rey benn xët yu xët yu boobu ñuy rey ne mooy mottali seen seen kii ba mais ki def ifraat moom xaj yi waru ko maanaam duut forcément dafa war a rey boo reyee nag maanaam ngir coobarewu mën na koo def loolu mën naa nekk waaye duut nga xam bi forcé la beneen bi nga xam ne moom moo ci am moom mooy kii aji tabaski waru ko loolu war nañ koo jàngal hmm. kii aji warut tabaski tabaski ñi aji wut ñoom la war hmm. waaw danaa la sallallahu alayhi wa sallam tabaski na ci lu mat ay juróom-ñetti at ba juróom-ñeenteel ba ci la doog a aji loo ciy déggee moom mooy tabaski na ba ba mu aji wut mais ba mu ajee dafa tabaski hadiyu la defoon hmm. bi def tabaski xar la doon rey ja rey na ñaari xar weex bëgg di wax nga xam nit ñi lii la yàlla santaane nañ ko rek tabaski bi ndax maam Ibrahima yàlla nee na moom la ko joxoon pour mu jotee ko doomam Ismaïl kon loolu mooy sunna ñu rey xar ci tabaski wala pour mooy li nga xam ne mooy li gën bu ko amut ñu doog a indi béy euh, nag ba gëlëm mais su dee ci hadiyu la ba muy dem gëlëm la yóbbu te ba muy yóbbu gëlëm ga gëlëm yi yu bari la yóbbu wax nañ ñu yóbbu lu ma téeméeri gëlëm waaye juróom benn fukk ak ñetti yi la rek euh, looj ak loxoom yeneen ci de Seydina Ali moo ko mottali kon lu ñu ciy jàngee foofu beneen bi moom mooy am na ñooy wax ci ci ci jàngale naan laan soo ñëwee tabaski euh, gëléem moo gën xa topp nag topp nangam loolu euh, salaa salaam jàngal ko salaa salaam jàng su dee xaj yu la la su dee tabaski la xar la parce que loolu la jàngale woon am na xadis bi wax naan ku ñëw julli si julli si àjjuma ci waxtu bu njëkk bi da am yoolab gëléem ki ñëw ci waxtu ñaare am yoolab nag bu ñu ci waxtee lu am yoolab xar yoolab bëy yoolab ganaar yoolab nen boo ko seetloo noonu la xadis soppalante hmm. am ñu sukkandiku ci loolu ne kon rey gëléem moo gën ndax yoon moom la xadis wax ci àjjuma ji mais loolu luy arab yi di wax qiyaas ma al faariq la maanaam danga ngaa da ngaa lu génn li nga xam ne moom moo hmm. nekkoon hmm. danse bi ñu nekkoon waaw parce que yonent bi xamoon na ne Ibrahima xar la rey ci tabaski te mu ngi ko rey woon fa ñuy fa ñuy sànnee jamra yi côté boobu noonu fa la doon rendi fa la doon dafay xaj lu tax ba muy rey tabaski bi ñëwut foofu noonu rey fa gël parce que xam na ne tabaski fu nit te nekk mën na ko faa def te xar lay rey mais xaj yu nag moom comme foofu la ñuy rey moom moom daal di rey li nga xam ne moom mooy gëlëm kon ñu ñu jàpp ci ne xaj yu gëlëm moo gën topp xar topp bay topp euh, euh, kii topp nag topp xar topp bëy ci ñu ko mënee mm-hmm. mais su li la kii doon wax léegi Abdou Salam dañ lay na la xara ngi fi béya ngi fi naka ngi fi gilema ngi fi bi nga mën nga jël ko mm-hmm. léegi nag bi nga mën boo ci jël rek baax na parce que yàlla waxu la force nga jël bi mm-hmm. léegi nag leneen li ci am moom mooy fa ñuy sànnee ji jàmbara nit ñi bëri nañ koo xam ne mënuñ faa dajee ba pare nar a rey seen gëlim yi ay mm-hmm. millions yi ni dajee ku nekk nar a rey ay xar ah. dafay métti moo tax ñu wut ay abattoir yoo xam ne dafa isolé wu nit ki mën naa ñëw àcc sa ba du gis mais boo seetloo bu ñu dem mun a bis bi su lay yóbbu boo xoolee sa ndeyjoor da gis si gars yi di def xar yi di leen dajale ba mu gisoon nga wala déet ndax bëri bu ñuy bëri hmm. su ko defee nag ci ci suba te lañuy xëy benn gëlëm lañu wala benn xar ñu bind ci turu Bachirou Ñang hmm. hmm. alxaaji Bachirou Ñang moom moom xar mii léegi su ko defee moom mën na ko bañ a gis waaye bu xëyee ñoom danañ rey xar ma ci turu alxaaji Bachirou Ñang am na ñoo xam ne mën na laa defal possibilité li jógee ci hajj bi nga mos ci ndax moo possible la mën nga cee lekk ba pare maye ci mhm. waaye su fekkee mën na ko kii itam boo ko xasee yàlla da koy nangu yaa ngi wax ci wàllu ñibbisi ganele danaa koy faral di wax ujaaji nekkee ci waaw bu nekkee ci arafaat bis bi mhm. na may def buñ xëyee jàng jàng ñaan noppalu dallu ba ba tusubaar rek mën a leen yeneen bi dafa doon xutbaal gars yi gars yi la ñuy waxtaan li mu xutba woon nañ moytu li nga xam ne moom mooy arnaque ndax ci wàllu xaalis indi wax na ci nañ moytu li xam ne moom mooy sàcc ndax ci wàllu xaalis wax na dañ moytu li ne moom mooy corruption ndax ci li wàll alal yi leen salaa salaam doon wax te bëri na ci jamono ji ñoo xam ne ñu ngi def yenn naxaate yoo xam ne su fekkee ne euh, bàyyiwoo ci xel da nga dugg ci yeneen bi dana xaraamas te doo ko yëg par mm-hmm. exemple da ngay ñëw ci da ñëw ci ci ci ci ci jamono bii sax ñu lay udee ñu baal ma banque islamique lañ lay wax banque bi ne la léegi Euh, banque baykat moom boo ñëwee soxla dafay jël ci yow ba pare jëlaat ci yow intérêt te intérêt boobu noonu dañ la wax ne ne baaxul hmm. moom mu ne la ba Basiru ñoom boo demee gis benn kër bu ñuy jaay boo ñëwee wax ma ko léegi au man ma jox la nga dem jëndi fay ma comme li nga koy jëndee déedéet dama koy jënd ba pare jaayaat la ko kon su boobaa du nekk riba man leen benn bi la forme bi lañ changé forme bi la de waaw nga wax baax forme Bassirou moo gis oto. Hmm. bu ko jënd ñëw ci banque bi dama bëgg jënd oto banque bi ne ko naa la jox trois millions wala cinq millions yoo ko jëndee mais da ma fay cinq mille six koy ba hmm. hmm. ma la du ma la wax tegal ma waaye waaye ma jënd ko. su ma ko jëndee pare jaare ko yow nga fay ma six millions kon la ma la dama ci bénéfice. boo ko seetloo daf laa nax ci ay ay kàddu. terewut benn système bi la. dëgg la fekkoon moom moo wër moom moo wër oto ba gis ko wala moo wër kër ba gis ko wala moo wër place ba gis ko wala magasin ba gis ko ñëw ne la Bachirou place a ngi nii gaa ma jaale ko ci lii lii ndax jëndee naa ko suñu million maa maa ngi ci teg cinq cent wala wala wala benn million kon garaw mais yow yaa dem wër ba gis ko ñëw ne ko dama ma bëgg a jënd bëgg nga lebal ma mu ne la kon bàyyi la ma fay fay waaji après yow booy fay na nga benn système bancaire yooyu noonu hmm. maanaam ci wàllu naxante beneen bi moom mooy suñu rajo yi léeg-léeg euh, ñi koy def ne la soo ñëwee woote ma ba ma jox la loo paasee dem barab sang. Hmm. léegi Bachirou mu ngi dugg ci mu ngi dugg ci eh, ligne bi di woote. serveur bi euh, sëriñ bi dana moom mu ngi dugg mu ngi ngi dugg war a woote serveur bi am na benn partie boo xam ne ni rajo boo koy ma am partie xam ne ni. Euh, opérateur bi moo ko am boo xam ne ni sponsor boobu xam ne nii mu ngi moo koy moom. Hmm. su fekkee nag serveur bi diggante rajo bi la nekk ak li nga xam ne moom mooy opérateur bi. ñu koy jaayee unité nangam moom mu ci war a am nangam lu mat vingt personnes wala soixante personnes duggandoor kenn mënut a dugg. Hmm. te xam nga serveur bi moom boo xasee dugg rek. waaw commencé naa muy compté. Hmm. Hmm. kon loolu mooy ñu ngi ñu ngi jël sa alal boo xam ne ni yow jëfandikoo ko. da doon jaay xam ki oote pour wax xalaatam. oote pour wax xalaatam dafa dafa jënd temps d'antenne pour wax ndax li muy woote jaral na ko ko. moom wax li mu soxla woon perte na amul problème. mais kii nag yaa na ko wooteel. Ah, ma jox la nangam léegi nag ci diggante bi mu woot bi mu bi wuyu ci la affaire bi war a commencé mais nag duñ xaar nag mu wuyu commencé kon mooy lekk nañ la am la amoon loolu système mu naxaate la jamono bii nii ngay naxaate boobu noonu ci ci alal yi ñuy naxee nañ ci lañ bokk hmm. fukki nit ñooy woote wala ñaar fukki nit nga lekk ci ñoom lu mu mat euh, lu ëpp euh, cinquante hmm. jël benn dix mille wala vingt hmm. benn vingt ko kenn nit te la nga ko jox noonu ci alal ñeneen ko jëlee ndax fayoon ci dara système boobu noonu tamit ci waa wàllu naqe ndii la a lu ñu war xel jamono bii nii moo toll koo xam ne benn bi la yeneen bi doon jàngale ne xara alal yi dafa am yu sacré deret yi sacré hmm. noonu la ñu war a saytoo ni ñu dañu doxalee liggéey ku woote jotul hmm. nañ bañ nañ nañ bañ a jël lépp hmm. ko loolu su duggee nag ñu ne ko léegi commencé nga wax léegi li ko à part loolu nag lu ci tegee ay toog benn opérateur opérateur yónnee la benn message boo xam ne yëguloo ko sax. <laughs> nga toog sa kër dugg mu dagg ko. Ah, lam ah. dagg noonu noonu fan la ko teg. Ah, système boo xam ne noonu. mu ngi ci ak gànnaaw la nekk ci arnaque ba léegi. ok ok léegi nag xutba gi man li tax may faral initiative yu mel noonu moom mooy yéen dafa woon alal yi dafa xaraam. ni ni ni ni ni bis yi xaraamee ak yu ni mel. Hmm. mais nit ñi dañ ciy dund duñ ko bàyyi xel parce que hmm. am na kuy taw dégg na ne xaaral ma woote bu ko defee moom ma ngi dugg ci loolu. Hmm. corruption da dégg ñu ne la kii eh, riba ki ko joxe ak ki ki naxee moom moo ko moom déedéet mais su la wóoree kii ci riba lay def nga jàppalante ci ak moom ko yaa ngi xam ne moom yàlla te yàlla ne wala ta wala taawoon al ismi wal udwan léegi nag da ngay jàpp ne moom ah kon kon moom moo moom moo moom moo lekk déedéet yow mi ko jox mu lekk yaa ngi koy jàppale ci li yàlla di aaye su boobaa nag dañuy mujj bàyyi wala xel li nga xam ne mooy loolu comme dañuy war a ñibbi gannaaw jógee ci aj mm. damay faral di wax ne ku ñëw fii boo ñaanee yàlla yàlla mën na nangul li nga ñaan mu nangu ko mm. bu fa insi bu fa nekk di concentré ci benn ñaan te yàlla yàlla may li wala laa mën na la guddal yow rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban naar mooy yàlla yiw àddina yiw àllaaxira boo ko ñaanee jeex na nit dana ma wax ne ma bu ma ñibbee damay am ku ma tàllal loxo dama ñaanal lan laa ko jàngal arabana aatina wala jàng euh, fatiha wala salaatu ala nabi nga ñaan yàlla li mu soxla yàlla may ko loolu kese la mais nekkul li tax ñuy wax nit ki ñu mooy dafa jógee ci yàlla yeneen bi ne ku fa ñëw aj doo ñibbee sa bakkaar yi comme ni nga juddoo woon la mel hmm. su boobaa nag yow boo ñëwee seet nga boo ñaan yàlla da koy nangu ñaanal ne yàlla na ma yàlla may ñaan gu nangu bu la yàlla amee ñaan ko nangu boo jógee ci Kaaba ga boo ñibbee Sénégal ci boo ñaanee yàlla dana ko nangu ndax xasan nangu sa ñaan googu ba pare soo bëggee noppal macha allah loolu mooy bi bi nga xam ne moo a gàtt moo gën a gàtt waaye nag jaamu teral la nga dem aji hmm. am ñoo xam ne bëgg nañ ko mënuñ war a sant yàlla sant yàlla hmm. ganele sant yàlla moom yàlla xéewal na ba ma dem jaamu-jaam boo xam ne ni bari nañu ko bëgg tam mënuñu koo am hmm. am na ñu fa dem dellusiwaatuñ am na ñu fa jugee jëlee fa kay loolu yëpp yàlla musal na ma ci comme ma dellu si naa naa sant yàlla sant yàlla nag mooy da ngay def yàlla bëgg boo hmm. mënee rendi ab gàtt jaamoo ko yàlla baax na bokkoo say mbokk bu dee xar bu dee bëri lu mu toon baax na waaye nag euh, organiser sabar ñuy ñëw di tëgg ñu naan laan ay euh, alaaji noo saan ne jamra wala ajaa noo saan ne jamra ngay ngay yëkkati tànk di wax te wóor na yàlla ba nga saan jam ba defee noonu hmm. saa yu ma ko waxee fii ni ñu dañuy am na ñu koy taxaw di di secc di sol yeneen yoo xam ne bokkut a hmm. sa yére yi nga jógee woon fii ar armalee ko da nga cee da nga jëndoon ngir jaamu ci yàlla hmm. ngir yàlla boo demee bu ko sànni tee ko ko ba mu set guddi alxamis boo mënta dem jumaa ji guddi àjjuma guddi àjjuma ji jot nga sol yére yi ne yàlla yére yi bi mu ko solee jaamu kese laa defoon kon maa ngi lay ñaan sama soxla sàngam mooy moog yàlla dala koy nangul hmm. parce hmm. que armal xarmal li muy firi mooy da ngaa woon yàlla ne ko sumeeku naa ci lépp ba mu des yow hmm. waaw yére yooyu rek nga soloon defoo ci lenn loo xam ne xeetu naa lu yàlla di bañ li nga doon def yëpp mooy jaam yàlla laa rafasa wala fusuuqa wala jidaala lu ci topp fa iza afadtum min al-safari fazkurullaah yaa ngi tudd yàlla istaxfiru ka ngeen baalu yàlla moom na istixfaar ngay def tudd yàlla ñaan loolu yëpp nga nekk ci sell googu noonu yére boobu boo ko summee boo ñëwee teg ko fii nii denc ko amul njëriñ dëgg la guddi àjjuma bu jot jëlal sa a armal Bachiru nga jël sa yére armal bi nga ñaan yàlla soxla yi nga am. Mm. nga xool nu def loolu noonu. Mm. ne Baye Moussa naa na mel noonu wane ne sama armal gi àjji leen ma ko joxe mu mu jaa mu ñaan yàlla yàlla day day faj sa sa aaju yi nga soxla. mais du nekk lu ñuy jël naan da nga koy fas fii da nga koy takk fii am lu ci kii mm. beneen kaa la. baax naan sam sam. jox ko li ñuy jaamu su ko defee ñu ñu ñuy def lu baax tey ma suñu bon waaye buñ ci organiser loo xam ne safaan la yàq gi itam bokku ci ci ci ci ci lu la macha allah jërëjëf leer na leer na trop macha allah yow moom résumé nga lépp moom macha allah ñu ngi lay gërëm la sant amin amin yaa rabbi Seck amin di dama a arafa bi ci barke wéy la ñu nekk amin jërëjëf jërëjëf imam waaleykum salaam jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mbokk yi cinq heures trente minutes la ñu tàmbali jëm na ni juróom-ñeent waxtu moo des fukki minutes léegi si kanam kon def na na génn ci waajtaayu wala nekkaay arafa gi ñetti waxtu ak fukki minutes ak ñett la ñu àndandoon yéen ñu ngi leen gërëm bu baax baax di leen sant des leen daan ak rajo Alfayda jërëngeen jëf labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna والنعمة لك والملك لا شريك لك